وظن العدا أني هنا كثير أسير مع الأبرار حين أسير وظن العدا أني هنا كثير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسب الذي قادني إلى كريم عليهما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجذتي همتي وعزما قسمتي لديك يا ذا القسم وكن لي Luis كوني عبتس العرش وحده خديما لغير الخلق وهو نظير يجيرني الكافي بي من أذى العداء wa min kulli suin wa wa jalla mujiru masiri kawni abdahu xaadima nabi wa amrul baraya min ilahina yasiru مسيري كوني عبده خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سحوري وأيامي خد الخيل سواحد بكوني عبد الله وهو سعير ستوري في الدارين لمدحي محمدا بنظم ونسر و وشكري لمن كل بشارة له ردا دون سخط هند سرسارة حمدي وشكري لمن كل بشارة لغور دندون سوخت هند سرسارا له صناء وردوان بلا سخط مسخاد لي من بني ديمان أنصارا إليه كل لدى بار مكومة من أرجلنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسار غرغسدوا زيارتي فارخوا دارين أو سارا قصدوا زيارتي فارق دارين أوسارا إن الذين إلى سرارا قصدوا زيارتي فارق دارين أوسارا subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin لعو تبت من عيب التفاتي لغيري ومني له عد علي ضمير لعوت ابتضاء بيع mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen nuyu ah, di am mbégte bu baax ci bërëb bu teel bërëb bu sell bi nga xam ne yàlla dogal na ñu ngi fi muy eh, fii ci Mayumba nga xam ne fi la ku tedd ki nekkan yàlla dogal mu def fi juróomi at ba taxan na nag mbokk taalibe yi dajaloon ah, Euh, def karawaan boo xamante ni ci euh, ndigalu Serigne Fallou Bousso yàlla na suñu borom yokk ay leeram taaf ñu ci barkeem ak soxnaam soxna Diarra Bousso nga xam ne liggéey bi ñoo ko sos wutal koy kéet wut ci war lépp ba liggéey bi si fii mu si ren jii nag yàlla dogal ñu dénkan ñu wàllum transport ñu war cee indi tuuti ay leeral ah di leen wax rek ñu ngi ko àndal nag mboolem taalibe yi ci dëkk bi di yëngut ci wàllum transport ñoom ñëpp ñu ngi ni taxaw sëñ Alla mi ngi ni ci sëñ Fallou Thioune mi ngi fi sëñ Kàllaam Ñang mii di sunu jëwriñ sëñ Ngañ Fay bokk ci sunu jëwriñ yi sëñ Aale Mbeng mi ngi nii taxaw sëñ euh, Cheikh Fall mi ngi nii taxaw sëñ Alaaji Mbay mi ngi ni taxaw euh, sëñ Cheikh Ndiaye mais nga xam ne moo yoroon wàllum transport bi euh, trans wàllum mécanicien bi ak ñoom sëñ Jibi ñoom ñëpp tamit ñu ngi fi wax dëgg yàlla ñu def ci liggéey bu mucc ayub yaa teel cee jóg nag def ci liggéey bu mucc ayub ba yàlla dogal ñu agsi ci jàmm ak salaam war delluwaat ci jàmm ak salaam kon nag dañ leen di jox suñu jëwriñ sëñ kàllaam ñang mu leeral bu baax fin ci jot a àgg ak fin ci jot a ak fin ci jot àgg incha allahu rabbi sëñ kàllaam bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu àq di leen ko baal tey ñaan yàlla mboolem nu jéggal waaw noonu ko naar waxe muy euh, membre boo xamante ni membre clé la ci euh, wàllu transport muy wàll gi nga xam ne mooy moom la ñu féetale ah ñu def ci nag liggéey boo xamante ni liggéey bu amaam solo la ndax dañ cee teel a jóg maanaam euh, teel ko saytu bu baax ngir maanaam liggéey bi ba ñu am dara lu sooxe maanaam ci wàllum oto yi nga xamante ni moom la ñu war a jël muy bus yi. site internet la ñu ëpp lu ñuy. con lu ñu consulter di ci seetaan ay xibaar yoo xamante ni mooy xaw ci àdduna bi waaw bari na ñoo xam ne nii dañuy dem ba à la dernière ñu inscrire boo leen waxee ni leen yëf yi jàll na bu yàgg ci tele yi ñu naan la mën kat damaa bariwul lu may faral di seetaan télé. waaw maanaam site internet daal xam naa ni moo ëpp lu nit ñi di consulter ci ay xibaar yi xew ci ak jamono ji àdduna bi lépp fi mu nekk nii kon fas nañ ko ci gën a yaatal bu baax ci site internet yi ba maanaam ñu mën a joti fépp ci àdduna bi incha allahu rabbi jaay ngeen jëf ñoo ngi jaar euh, mbokku taalibe yëpp di leen jaajëfal di jaar euh, pèlerin yi jóge Sénégal ak Libreville d'autant plus que aussi ñoo ngi fii depuis deux jours pour caravane bu Mayumba c'est pas la première fois mën nañ tey mooy quatrième édition bi na ñu daje tey tey mooy Mayumba fii la seen di jaaroon bii ngeen gis ni ñu ñëpp taxaw fii ñu ñooy waa restauration li nga xam ñoom ñoo yor wàllum xéwal gi ñoom ñoo yor wàllum xéwal gi ñu nekk fekk staff bi yëpp bu si mel ni suñu jigéen nekk suñu wet ngi ko soxna Maguette Gueye di wax aussi le responsable de la cuisine Youssou Fall ak Ablaye Thiam ñun ñoo yor wàllu dispatch mais ñun ñëpp ñooy liggéeyandoo ensemble man maay fallu Diop aussi boole si fallu Samb boole si simit Diop mooy baay Fall bi sama doom Baye moom moo nekk noonu Baye Fall bi xam ñun bu ñu kii wér ñoom ñooy jàpp ci bagage di wax ne ñoo ngi kontaan bu baax wax di jaajëfu mbokk taalibi yëpp di wax ni tamit euh, ñoo ngi ñaan yàlla yàlla may nu tawfiq nga xam ne ba nu fekk encore si jàmm mbir mi gën a yaatu bu ko defee ma jox sama jigéen mu wax pour euh, euh, waa jigéen ñi nekk ci biir waañ bi. salaamaaleykum waa groupe waa Karawane Mayumba ñoo leen di ziare ñëpp di jiital ci ziar bi sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te nuyu suñu jëwriñ waa waañ bi yu sëñ Youssouf Fall sëñ Ablaye Thiam sëñ Fallou ak soxna ñu ko bokk rek soxna Ndeye Binta Samb soxna Mbaye soxna Seynabou Sall saal leen nuyu yéen ñëpp di leen ziare di wax yal nañ xew liñ def daal yal nañ ci dajee ngërëmu sëñ bi sant nañ ñëpp.

أخذني يا أخذني يا صفيحي وسيلتي هنا وخطا يوم السماء تمور أزير ما